koor kan ci suñu jaar benn walima la mooy séddale borom def invitation bu rëy a rëy xool ñëpp dajaloo Abu Zeydin ak ñim ànda ñoom ñu ngi ci dëkk booba tukki ki lañ nekk tollu fa ñu waa leen ñu dem ñu waa leen ñu dem bañ demee ñu taajal leen yu bakkane Abu Zeydin dal di gerte lu taxoon mu gerte te loolu baax a baax a baax gerteem nga yàqal na nga lekk ñam lu taxoon mu gerte ak fu mu mujj incha allah leer da ci xamee bu baax ne gasa bakkan ci lu métti ndeg seet sa digganteeg yàlla ku baax rek lay mujjale nit da ci xamee bu baax ne gasa bakkan ci lu métti ndax sàmmanteeg jom ji war ci yow baax rek lay mujjale nit incha allah ma xamee bu pare da nga ko gis da nga gis ne itam fàtte xaqi diina fàtte jom topp bakkan lu bon rek lay jural ni doon dëngu gis allah mu ne hakka nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam qaal mu ne xafaltu wëññeeku woon na saata marratin jëmmi aw yoon mina saami tukkee sam dama ma doon bawoo an xool bi doon danaa madinata salaam baxdat ma dem Bagdad fii rabbin ci seet yi même ba nii numayrin ñi bokk ci banu numayr ma ànd ak ay gawar yoo xam ne ci banu numayrin lañ bokk fii rabbin ci gawar même ba nii numayrin uli xayrin ñooy boromi yiw wa mayrin ak xonta maa ay àndandoo te yoo am nañ sax te itam jëriñi kat lañ ñu la àndaloon ñu bàyyi ko sam jëm baax wa maanaam te ànd naa ñun Abu Zaydin yàlla dama tukki ba Abu Zaydin te laa ndoom asoro ji may ko jug soroot moo xalaat naa daan kay gàllankoor aji yàkkamti Abu Zaydin mi nga xam loo yàkkamti yàkkamti mën na la gàllankoor wadal watu sag laa tey niisu aji ñàkk doom loo toll toll ci piis mën na la taxal niisu woo jëwatu sama tey kéemaanal jamono ki nga xam ne kéemaan la lu jamono wane lu jamono génne wal musaafir ku ñu junj ilay jëm ci moom bil banaani ci baaraam bil bayaani ci biral nga xam ne bu mu nekk rek moom la ñoo naaral ci fasaha moom la ñëpp ay xool wal musaafir ku ñu junj ilay jëm ci moom bil banaani ci baaraam bil bayaani ci biral Abu Sayyid mu ngi ànd ci jawla bi fasaada fa dajjal nusuulu naa suñu wàcci sin jaara dëkk bu ñuy wax sin jaar an aw la moom bu céetale bi haa ci sin jaar ahadu tujjaar kenn ci wéy yaxantu yi bi ñu àggee sin jaar ñu fekk ba kenn ci commerçant yi mu ngi am benn walima bu muy def mooy dafa jël jabar da ko céetale xam nga yëfi commerçant day rëy ndég rek niñ gëmee mbiru xaalis seetlu ko baax a baax niñ mën a yëfu xaalis wa taxaa mu woote ilaa matubatiyi jëm ca ndabi njekkam ya aljafala woote boo masale masale léegi nag ba muy xootale ba muy xoolee tiranga ja ñëpp la xoo comme ni seen mbir mën a réyee noonu rek min ali hadarati ci ñuñ teew wal falaa ak àll bi nit yi àll yeeg nit yi pays ñëpp daal la xoo xataa sarat ba rayaan na daa wóotoo xooteem ilal qabilati jëm ca mbooloo ma daa ji tukki même ñun ñi nga xam ne tukki baax si fi rek lañ toll ñoo def sax boole xaale nañ xataa sarat ba rayaan daa wóotoo xooteem ilal qaafilati jëm ca mbooloo ma daa ji tukki wajamaa mu boole fiha ci woote bi baynal fariidati diggante mag ñi wan naafilati ak gune yi ñëpp daal la woo falamma ajamna ba ñu xëy jee munaadiyoo aji wooteem waxalal naa te ñu wàcci naadiyoo péncam aleykum salaam kon jërëjëf beneen yoon ñu ne naa te ñu wàcc naa di yowoo ci pencam na mu min adhematil yedi ci ñami benn loxo walee day ni ak ñami ñaari loxo maalu xam ne xalaat neex na mu bil ba mi ci gémmiñ waxal yette mu rafet bi ni ci bët ba nga xamee ni ñëpp dajee nañu muy it ay façon yi ñoom yu bari am yoo xam ne benn loxo moo ko lekk am na ci ne ñaari loxo moo koy lekk nga benn loxo bi bu ngëbee mburu bi bii di dakk di dugal ci biir ndax ni di jël lekk bi balaa sotti ñaari loxo dana ci bokk waaye fekkee nag da ngay gëb sa kuddu nag benn la benn loxo mooy lekk te lu a na rafet na torop boo ko xoolee ci bëgg aussi saf na torop itam loolu moo <laughs> kenn xamul mu ne maa loo xam ne xalaat neex na mu fil fami ci gémmiñ waxal yee mu rafet binaay ni ci bët su ma xaddama topp mu jiital jaaman ndabal weer loo xam ne ka annama jummi da daanaka wayalees na ko mi ne la waaye ci ñu ndab bi ñu andil weer la bu set wecc wecc wecc ba nga ne boo xoolee li ci dafa mel ni sa diggante moom dara doxu ji dafa mel daal jëmm ji ci lañ wayal rek muy weer bi ndax ni mu sexe li ci nekk yëpp da ngaa janoog moom mel ni dara dara nekku seen diggante ka annama jumme da daanaka wayalees na ko mais xawaay ci jëmm ji aw jumea wala dajalees na ko mais xawaay ci pënd aw siira wala tëggees na ko min nooril fada ci leeru ji aw xusira wala xollees na ko min a durrati ci wurus albayda bu daa ji weex selon baba jàm bu héeme la waqat ate dénkees na ko lafa ifan naayam yu ñu boolee xéwal mu ne ndab bi nag waxuma la li muy rafet waaye lu lu ne mu ngi waaw façon rëdd bu ne def nañ ko lu ne def nañ ko selon bu baax sidna omar idaa maani fii inaa in la akulu mu ne ñaari ren bi ci benn ndaw omar moom du ko lekk mukk waaw waaw neex na wadub meexa te réexees ko bitti bi ci gàtt alhamim bu daa ji matale dañ ko defal parfum parfum wu ndab ak parfum nit bokk dañu raw rek waaw dañu raw rek te noonu façon bi ngay def ci ndab boo ciy lekk sa xel dal bokkut ak bi nit daa amee bu génnee neex a jege xam nga bokkuñ dëgg-dëgg bokkuñ dëgg-dëgg waaw lu nekk lay façon am rek moo tax boo ñu ne defal nañ ko gàtt te yow mënoo ci gàtt lekk da nga xam ne gàtt dafa yaat lu nekk lay gàttam dégg waaw wasiqate manges ilayhi jëm ci moom min tasnimin ci tasnim mu ne ndabal weer lii mu indil ñu ak yu bakkane yi ci def naan gu xam ne ci tasnim la baxoo lañ ko boole ay nan yasrabu biha ibadul biha al muqarrabun yoon de la caajana ibadullahi al muqarrabuna ñu ci ay naan mu peeñ han mar an jisuwaay wasimin bu daaji rafet waara ji nasimin ak bon ndigg la wu nasim ko defee muy xiñ neex torop rafet ci bët torop xam naa mos moo des ku mos da nga fekk mu saf neex daal <laughs> xëy neex torop tuuti moo des fala mataramat ba tàkkee nag bi maxdari yi ci teewal ndabal weer loolu asahawaatu baneex yi wa karima te sopp ilaa maxbari yi jëm ci baatinam allahawaatu purux yi bañ ko tegee nag ba nga xam ne xel yëpp jëm nañ fi ne ku ne lekk ci rek la bëgg wasaara mu jegeñ an tusan na bu tasaaree ba sir bi yi ci génnam alxaaraati lokk yi ne dit bi song rek mooy waaja def wayu naa daa ak bu wootee fa bi yi fa ne yaa la saaraati baat la bu ñuy wax ci xare mooy nañ jël sawr yi bi dee boo xam ne song rek moo nasafa dafa sori sori na Abu Zayd Abu Zayd Abu Zayd dafa sori kal mañ noonu mel ni kuñ jineen mel ni ko amee wa tabaahada mu sori xam nga wali ndab li tabaahada dab bi kem soriante mbëtt mi ne noonu ci jël mu ne maa ngi ndab li duñ ci bokk rek xam nga jël rabu ndox la mbëtt rabu suuf la suñ ñoom ñaar rek ba am ko am am na ku jamono dara am na ko am na am na ko am lu ko neexul waaw ah, mu ne buy suma sago ndaw li moom dafay jox maa moom duñ fi ne loolu la wax farawat naa ñu sàkku ko xanaa yemoo de ci bu mu des ñaar ñu ne ko waa ji yow bul yàq tiraas ne lii kenn du ko ay ñëwoon waa ji war la yëg ko naa bu leen muy nekk ka xodaarin fii samoot yi ci samoot bul ñu indil problème xodaar mooy kallojoon gélemu yonent yàlla saalih ga ñi xaalagee leen te ñoom ñëpp idim baasa asqaaha ka gën a texe hadi ci ñoom mooy xodaar ñu ne bul ñu indil tuuti moo fa qaala mu ne mu ne leen walla di giñ ci buur bi nga xam ne dana mu dekkal alam waata way dey mën a rijaam yi ci pax yi laa may del bi doon a rafet jaam yi ci lu yëkkati ndawal weer su fekkee da ngeen a bëgg a génne ba leen ci seen ndab bi su ngeen bëggee ma ñëw duñ bokk nekk jëlee leen ko bi loolu la leen wax de fii du may toog xaarit ne falam na jël aw ñu bu dan daw waaye min taalu bi ci niru way saar xale bi ak dëggal ngi ñëw léegi pexe jeex na lim bëgg il faut ñu fekk ko mënuñu koo forcé de ko tëñuloo te it téye ndab bi da xaajoo mooy duñ ko mën li mu bëgg ci lañ ko fekk rek faasal naahu ñu daal di yëkkati ndab bi yëkkati ndab bi xanaa xoolu te xel yi saa yi la tun mooy yëkkati ku lañ maa waxante ak moom waaye xam naa la ci day koom ku ko lekk daa lekk xel <laughs> yëkkati ko waaye xam naa jom bu dee la ci nekk kuñ ko jox da nga lekk xel faasal naahu ñu yëkkati ko xanaa xoolu te xel yi saa yi la tun mooy yëkkati ku lañ maa ma waroon nga ñu saa yi la sunu way yàlla ñaale yi ci moom boobu sax ba yëpp ngi xoj ku sëggoo rek da nga toq toq baax na bu ëllëg incha allah xaw ma. ndabal weer la kem ni mu setee kenn mënu li ci nekk ni mu bëtoo bakkane torop kenn mënu la fa war a dem ba song rek abu seydi ne déedéet léegi nag moom ndam li duñ bokk bara ñu wax wax mu ne déedéet moom daal li mu wax lay mën a def ah, te mënuñoo wuuteeg moom ñu yëkkati ndam li yóbbu ko delloo ko mu del si toog bari yu bëri ngi falamma faa ba mu dellu seen ila maskami yi jëm ci góor waaye mooy fi mu toog fi mu toog waxalata te mu mucc min maskami yi ci bakkaar ba mu dikkee ba toog na xam ne tëju ci ngi ni moom xamul saal naa ko laaj nañu ko li ma ngir lan xaama la jóg wala ay maanaan ak nga ne ak ngir man maan istafa allah yëkkatilu hmm. aljama ndabal weer hmm. léeg-léeg yow war nañu waxtaan li nga def loolu ko taxal hmm. yow woote nañ lekk nga ñëw ndég lekk si toog comme kuñ war a indil la ñu indil la ndab nga jóg ne yaa ndab lu du ngeen bokk lekk loolu tax waaye tax mën naa ko man bu ñu waxtaan li ma bañul moom daa leen fekk ba ñu waxtaan la ma doon bañ mooy toog ak ndab li de barab ba na toog na bañ moo tax bañ ma laaj ma xam waaw seetlu ko waaw saa naa ko laaj nañu ko li ma ngir lan xaama la jóg wala ay maanaam ak ngana ak ngir man maanaam mm. istarfaa la yëkkati lu aljaama ndabal weer wa qaala mu ne inna sujaaje butéel mm. nam maamun rambaja konde mu ne butéel dafa ñàkk weer way nii taman aalaytu giñoon naa mut an waa min du mat ay hat allah ya dumma nii bu dee dama tappe wana mooman ak rambay maqaamum benn jotaay benn saxuwaay te man dama giñoon bu yàgg ne man ak rambay duñ bokkati jotaay booba léegi man na ay hat maa ngi de ci bañ a tëj te lu way ni man alaytu giño naa mus awamin duma ay hat allah ya dumma ni bu dee dama tappe wana mu man ak rambaja koon maqamun ne bokkul naa ñu wax la woon ñaar ko ñu ne ko wama ana la saw bu yaminika mooy saw bu sëngiñ asirraala rek ñu dogu waaliyati ka sëngiñ alxarraadu daa ji tàngooru daa ji tàpp ñu ne ko ah ngiñ loolu nga dogee nga dogoo nii te ñàngalee ko nii xanaa dara ko waral du ko waraloon wa maa an lan taw yi mii ni ku may taw bu sëngi asirraala da lu ñu dogu waalee ti kaa sëngi alxarraadu daa ji tàpp fa qaal mu ne mu daal di wax ne innahu nagu luy kaana nekkoon na lii ñu al ma jaarum dëkkandoor mm. dama amoon na dëkkandoor mm. boo xam ne lisaanu woo làmmeñam mm. yataxarrabu dana wut a jege làmmeñ bi daal mbaax gi ci nekk eh buy wax wax yi ni man la neexal la lay wax waxal bu woo te xolam jiit la jiit bu lay fett da lay jox gannaaw mu mel nag bu la joxee gannaaw yàqal la lay nekk walam tu baatam mooy kàddum soxadun xobu lem la yan xaw boobu dana mu màndal waqafu hoo baatinam su mun tooke la mun xaw jadi ju saxal kàddu gi daal lem la waaye baatin bi daal dangat ju kenn man da wàcce ku doy waar wala boo baatam sahdun xobu lem la yan xaw boobu dana mu màndal waqafu baatinam summun tooke la mun xaw jëri ñu saxal bu dee ci zahir bi mel ni moo gën ku ne waaye bu dee mm. ndege ku ne bu fa miltu ma dal di jéng li mu jaawarati ngir dëkk gi ma dëkk moom rek ila muhawarati jëm ci waxante moom may na xam nga li ñoo wax dëkkandoor jàmm jëggën rek ndax yu bari moo la ci gën a jege tax nag ma jàppee bu muy sama dëkkandoor ah ma xaritoog moom da ko waxtaanal léeg-léeg waaw fa miltu ma jéng li mu jaawarati yi ngir dëkk gi ila mu xaawarati yi jëm ci waxanteeg moom waxtaratu man na bi mu kaasarati yi ci siñlante gi may siñlanteeg moom siñal gi may siñal demare am fi mu xaasarati yi ci ànd ak moom su ma àndeeg moom muy ree demas la loolu nax ma ci moom ni hoyo falma mooy fëkk ma nax ma xudratu dim na tiyi na taxal pusaaram salxatam li mu naa dama tiyi ci naanu aleeg moom basi yooyu desa desa ci sëni da gaaw a gudd dew da tax rëy rëy de benn doom bu am njëriñ bu dee war a fàcc day fàq da def ay càq def ay gub yu ndaw ndaw du am pepp mënuñoo dim na naataay ba bu la ca naxee wala bu ñoro la gano de nit koo xam ne wax ji mën naa neex ay wax ji neex ju bëri naxee ci moom it ànd gi doo jëlee benn njëriñ telu baax wasawat ni hoyo falma xudratu dimnatihi nataxa posaaram li mu naa dama fii ci naanu xaaleeg ne kun wardatan tiibuha hatta li saarixiha la dimnatan xubsuha hatta lisaqiha mu ne nit dafa war a mel ni war nga xam ne ki koy sàcc sax woo xeñal xeñ gu neex waaye nit warta mel ni dim na xam ne ki koy roose sax du ko amal nit te nangu baax a baax fa maa sëñ tuho ma jaxasoo moom sax ma ne wa wa waaxra ni xiir ma xonaatu simati simti yi simati yi xuruj ak mandargaam bi munaasamati ci wax ak moom may faral di wax ak moom wala bi munaasamati ci ànd ak moom may ànd ak moom suma jëmm di jàng di jànjog jëmm fa ma saytoo ma jaxasoo moom waaye ndi te nekk na fi man ne am na woon naka moom jaarum dëkkandoor la mu kaasirum ku daaji tolloo nii pour man dëkkandoor bu ma dendat la mm. lépp luy husnul jiwaari mm. dama ko war a def suma digganteeg moom mm. di xeñal ñam ko ji may xelaatuma ko liggéey nag du bakkane buy ko gis te njabootam du njabootam di ko gis te duñu ko mos xelaatuma ko saa su ma soppee dara danaa ko xoo ni la àndee moom li nga xam ne moo rafet ci diggante nit ak dëkkandooram lépp may ko sàmm wal jaari dil qurbe mm. wal jaari junubi mm. soo demee ci tafsirul qurtubi mm. dana bëri lu mu fa jàngale ci nit nu mu war a nekkee ak dëkkandoo waaye lii nekk na fi man ne ànd woo naka moom jaarun dëkkandoor la mu kasirun kuraaji tolloo néeg fa baana bir ne ànd woo naka moom xaabun li cin la kaafirun bu daa di xayaatlu nekk yàqkat bu mag a mag a mag wa anastu hoo ma wétu lanteeg moom xalaat na woo ci nakoon hibbun soppe la mu anit ku daa di la man ma jàppee ko ne damay doon wétu la muy suma wétu la kenn ku ne te teggil morom ma tiisaayu wédaay noonu la ko jàppee woon mm. fa baana wala fa wadaxa ah fadaara ki dafa wadaar fadaara dal di feeñ ne annahu naka moom xubaabun jaan la mu waalis gulaaji wurus léegi jaan piir la bu la ja noy gi napp bu la ja gi napp sooy boole ko moy léegi hmm. am wax ju neex ji yëpp daal du hmm. teel ku ñu war a mayu la fadaara dal di feeñ ne annahu naka moom xubaabun jaan la mu waalis gulaaji wurus wa maalatuhu ma jaxasoog moom torop seq ak moom ay diggaale bu baax a baax wala alamu may xam ne annahu naka moom mi man bokk na ci ñi nga xam ne yufrahu des na bég bi faqadihi ci ñàkkam xenda naqadihi ba gëstu léegi nit la ku xam ne ku ko xam da xam ne bu dee xam ko rek sooy boo tànn ñàkk ñàkk bi am wa maa laa si woo ma jaxasoog moom wala alam ma te def may xam ne am na woon na ko man doon na koo xam ne yu probu def na bégee bi faqadi ci ñàkkam indi naqadi fa gëstum waa xatuwoo ma fasanteeg moom ay mbir ay kóolare ay jëflante wala adri xaw ma wan ne am na woon naka mim man doon na koo xam ne yutrabu def na bég li ma farri yi ngir dawam baada farri yi ci gannaaw nattum ma seq moom ay pas-pas ay jëflante xamoon ne nit la koo xam ne ku ko xam la gën a sori gënal la man doon na koo xam ne yutrabu def na bég li ma farri yi ngir dawam baada farri yi ci gannaaw nattum dëkkandoo bi nii la mel wakkaana te nekkoon na hendi fi man jaariyatun jeebeer ma xame woon na asal jàm bu jigéen boo xam ne lay yoo jëdu déw fekk laa ñaal bu mu jaariyatun aji dawlanteer fi jamaali ci taar mu nekk jeebeer boo xam ne amul benn jongama buñ koy tollale ci ni in safarat bu feeñee tuuti moo des in safarat bu feeñee moom jeebeer bi xëjila rus an na yëra ni jant beeg weer jaaro dafa rafet bu génne jant ba wér dañuy wasal ya te jaaro alxulubu xol yi bi niiraani ci safara xol yëpp ci moom la ñuy aju wayin basamat bu muuñee nag asran mu xeeb bil jumaani wurusu wa bi an te jaayet almarjaan wurusu marjaan bil majaani ci neen bu mu muuñee rek nga fàtte wurus wayin bu jaayee bu la xoolee xayajan mu jeexi albala bi la jaax jaaxle yi da yëngal sa xol wa haqaqat mu dëggal sihra babila njeebeeru babila babil dëkk la bu xam ne ñu ne ñaari malaaka ñoo fa nekkoon Haaruuta ak Maaruuta doon jàngale xam-xamu njeebeer mu ne bu la xoolee da ngaa foog ne dañ laa liggéey ci moom de ndax rek rek kenn liggéey ay taar bi rek la waaw loolu may wax bi rek waaw wéy ronat bu jaayee xayee jat mu jéqi albala bi la jax jaaxle wa xaqaqat mu dëggal sihra babila njeebeer ak babila babil duham ya alal malakayni bi babila duham ya tayran ababila mooy am ya banan jànga alquran wóorlu dañ ko daan bi babila duham ya ababila mooy am ya ñaari baari bokk ñoo bokk waaye ku jàng alquran la mën a xamee mbiri way nataqat bu tuddee bu waxee xaqalat mu gëx mooy mu xeew lu ban xaqile xelam aji xelu suy wax mm. sa xel mi ci li muy wax la lay watan salat te mu sàkkoo wàcce mm. alxam ma wéy jafandeku yi mm. wala dikkati njaaxal yi borom weex borom borom borom borom borom borom xeeli weex yi mel maa xeeli tukkee ci njukku doj salat suy wax de waxam mën naa tax a wàcce dikkati njaaxal wayin xaraat bu jàngee nag safat musafara almafuuda ku xolam dañu waaye te mu dekkal almawuuda ku ñu suuloon te deewul wadu mooy suul koo deewul arab yi dañ ko daan def ci njëkk lislam boo amee doomu jigéen nan nga koy def ma ne du la liggéeyal dara da nga sonn ci moom te mën naa mu gàcce loola te nu wadul banaa mooy wa idal mawuuda suilat lay sambin qutilat bi ngay jàng ci alquran waxil taa nga jottu ko wotiyet joxel ko min mazamir ali dawuda ci salim bàyyi nañ dawud buy jàng daal jàng mi day neex ba danga foog ne ci mazamir ali dawuda ci la amee ana am ah, ni manoore yi demee daal moom laa xam ma doon jëfandikoo nag istaayanu ala qadaayin hawaayiji bil kidmaan fa inna kulla si ni'matin mahsuur xam ne yoo xam ne suturaal la laaj ndax xewal koo xewal koo gis rek xam na koo xam ne pexeem sa te mu yàqu waaw istaeenu ala qadaa'il hawaaiji bil kitmaan fa inna kulla si ni'matin mahsuur waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xam na yoo xam ne jëfandikoo suturaal la laaj ndax yow xewal koo mën a am rek am na koo xam ne pexeem sa te woon te mu yàqu rafet na bu baax moom nag jebeel bi xéwalam dëgg la ma ne ko mu da wayin xam na wayin xam na bu wéyee moom jebeer bi zalla yandu maabadun kuñ naan maabat abdan di jam laa ñaar maabat mi fi nekkoon madrabul masali ci neexi wuy ak rafet le ko suma jebeer be ko dàqa wuy bu wéyee ñi fàtte ko lakin na maa xasabu sibaaqi li maabadi ba nga jàngoon ci daaliya muhammadan muhammad sama jeegal ba ko mate wakiila te waxeef li asxaq ñaal kuñ naan asxaq ne ko suuxan sori la sori wa bu'dan te sori la sori suma jeebari bu danga fàtte wéykat boobu ñaan asxaq te ku ràññee ko woon ci mën a wéy la sori si bind na ci lu bare bari mooy li mu xam mu koy jox lu mu dugg Sénégal waaye sama bu sëri ba ada mujj zuna mun kuñ naan zuna mooy kira Salim al mutawakkil al xalifatul abbasi bu am tur boobu sani man de sani men da afam sani mooy koo doxee lu kuy doxee lu newul ci moom tele ko wax baax atuleen baax de mu ne bu wëlee bu wëyee Salimba da nga naan su naam li muy doxee newul ci moom moom ki daal Salimba al mutawakkil zamirul mutawakkil wayen samalat bu Salimba adha mujj zuna mun kuñ naan zuna sani man de sani men daa fa moom ba daan kaana ci gannaaw bu mu nekkee sanye man de njiit li ji li ñaan maasam wa sanye man te daal di warlu ngir israel ci biir wayen raqasat bu fekkee moom jebeel amaalat muy jengal alama yi ma kaala yi bu dee fecc ñëpp moom lañoo xool kaala googu day dëgg koo nu ko mën a gisee lay def waantat ka tam fàtte loola raqasal bi feccam fuuri fil ko aussi ci kaas yi fuuri ci sala na mooy def tànki ndaw ko man moo tax fàtte ci ko lii la taaroo mooy jëfandikoo sunna istahiinu ala qadaai hawaiji bil kitmaan fa inna kulla di nicmatin maxsul mu ne fa kuntu nekkoon naa asgari di xeex maa ànd ak jeber bi umran naam way màggi xéwal way xonqi gëlëm lay biri ndax alal dafa bëgg gëlëm gu xonq tax bu xéwal màggi aan umran naam waxal lii may taarale bi tamal ha may takayale bi tamal lii ha ci sama bànneexu ci jewer bi jii dañ ne ami lool ne xewal lépp loo xam ne yëfi mbég la daal fekk bokk bu ci matal pour samay mbiram nun la lépp loo xam ne yëfi mbég la daal su ma ko amee fekk bokk bu ci matal waajibu may hiit mar aha gisam ani sam si wëlis jant bi wal xamari ak weer ma ne ko humb humbal ne bëgguma kenn xamee ma bëgguma ngelaw bu fuuxu bëgguma naaj jot ko bëgguma leer ak weer sa jot dama ko nëbb ci ruq ruqaay waasoolu may tere mooy may dàkk sigraaha fàttalekum walla tuddam ansara ehe samat wala yooni ngoonaay waxtaan du ko neexee busuma la min laa ko ne am naa naa déedéet dama ko doon def jibu daan hiit mar aha jiitam ani samsi wala jant bi wal xamari ak weer wi waa soodu may dàkku mooy may tere sigra tuddam an sora en samar wala joni wala waana teman maa sali ka ànd ak loolu uliihu maa uliihu maa ngi watta ndeku min an tasriye ci bu royaata bi rayyaha ci xeñam guneya riihun ngelaw aw yakkuwuna walla jisaane bi ha ci jawer bi satiihun satii même ñi kenn mën da nëbb dara ndég ndég niñ xeewoo lépp luy tax ñi foogee ma jawer bi du ma xam na ñoo xam ne luy nëbb moom soo yeboo nga wattandiku màndarga bu ñu la koy foy waaye bu ñu dara ci màndarga am nañ ko am koy nëbb bu baax lii ko danaa wattandiku mi naan tafee ci bu royaata dara yaa ca xañam gu neex bi woon dara benn benn màndarga bu ñu ma koy foogee dama koy wattandiku aw yàkku wuna walla gisaane bi atimum sati um sati walla ku kenn mën la dëggu dara dama ko dëggu aw yanum walla rambaade mooy wane alaya jom barkon mela wala ibrahim mel xat dama koy nëbbu ah waaye xam nga rek bul yàqule nara dikkal mu ne fattafaqa dal di dajjal eh, li waskil xabdi ngir wàññeeku cër almafxoos bare bu ñu wàññi ka di taalin ak tiisu taalin taalin mooy bi nga xam ne borom xam-xamu bidiw bëgg a wax ci sa mbir fa lay dëgg foofu mooy sa taarix su fekkee da nga baaxle fu muy dëgg wax ne da ngay baaxle su fekkee da nga yàppale fu muy dëgg wax ne da ngay yàppale foofu mooy sa su ma alman xoos bëri bu ñu gaafal mu ne waaye xam nga mbiru ñàkk sens rek ananta ananta xat ni bu tudd lool ma was fi ay ci melo jeber bi xumma yel mu dam tàngooru sangara kendal jaari fa dëkkandoor an na maam bayram ba jakut benn bi ma tawa moom ñi naan ba ku ne màndi rek màndi te googu rek tax mu jeber mu tudd jeber bi su ma saaba topp del si mu dégg gannaaw bi ma yëg ne dem na lu wax da am feri na ci gannaaw bu jamee askan mu waaye li may wax xas naa ko wax mu dafa mel soo mu génnee ci xenaat mënoo ko caa delloo wax itam nag gannaaw génne nga fu mu ne jawan jibril da ko mën a delloo di alqawlu kallabanil maxluubi wax mu ngi mel ni soo muñ ratt laysa lahu raddun kenn du ko delloo ji ci xenaat wa kayfa yaruddul xaalibul labana masu gum ngaa dégg ko ratt soo delloo ji ko ca wenam ko ratte loolu mosugulu koo dégg waaye koo wax dara ba mu génn mu jël wax bi delloo jaar ko ca xel mu ko dencoon loolu kenn mënu ko seen baax alqawlu kallabani almahlubi laysa lahu raddun wa kayfa wa kayfa yaruddu alxaalibu labana loolu la de alqawlu kallabani almahlubi laysa lahu raddun wa kayfa yaruddu alxaalibu labana boo xasee baratu dara doo ko delloo ca wenn mu ko rafet woon loolu mënatuloo ko mukk moom naka noonu li nga génne ci sa xel mi wax ba mu tasaaroo nanguwaat ko ci nit ñi delloo ko ci xel mi dencee ko loolu mënoo ko xas naa ko waa sa tuma daldi yëg alxabaala wàññeeku xel wala baala ak mbas wala yaa sama ak salbu li nga xam ne audience dénkees na ko salikal xir baala ba wala tame su ma xel dem ca la Qays ne mbuut moom bu rombee ñaar rek tasaaroo ajoodu bi ma nguni talaati wa inna nii bi sirrika amman saala nii la daniinu mu ne man alal juma am na koo joxe waaye sekkare moom jëmale fu muy di tabe du ma ko wax kenn ajoodu bi ma nguni talaati wa inna nii bi sirrika amman saala nii la daniinu إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنص وإفشاء الحديث قبيل ndax mburum borom bi ñaar rek tasaaroo na loolu ci sama xel dañu mën a bayda ni dara man ah tuuti ko lorante naa moom ala am ni maa ci takk li ne lafas tuuti baatal naa waaye ba ma xamee ne wax naa lu waxu hadiyin nag teewul dëpp naa ne ku naa la ba nëbb nëbbale de ah tu pëlëraat naa mo ala am mi maa ci takk li nga xam ne la ba tu baatal naa ko waaye yaxfada ak mu wattu asirra bon wala axfada tu doonte merloo na ma ne ko lu ma mere mere su ma dee kara bi lu mu ko xafida yaxfadu muy fañ la bil kasri yafaalu muy firi wattu naa jismu bi hibdu wattu la ahfada merloone yu fidu muy avant la yu melu muy firi merloone sama moom mu woote ne am na woon ne ka moom yàq sunu dana mu denc asraar ak buuri ka ma yàq muy mu loolu bu yeboo sa man kii mbiru sekkare moom ku ma bëgg a mere ci mu mere sekkare jàmbur kii du ma ko de waxal kenn kenn kenn ah loolu la wax de waa ne ak na ka moom lay si ku du xotti alistaar ay kilay wala on da doonte gaara leef na ko li ay yéene ñi bu mu tàbbeet ak naara safara mu war ne man kay mbiru gore hadi dee ma ko gënal ndax dee de gor mu gën gore hadi gore hadi lu tee dee gannaaw gore hadi dee gore dee man dee tey gora ma ko gënal man dum ko wax kala waaw jënd yaa ngi ko waaye est-ce que dañ ko jëlee su nekk waaw noonu laa mel mm. jarul wax nga dëkk mm. bu yàggee rek dana ko <laughs> nii laa mel mm. mais jarul nga dëkk bu yàggee rek dana ko ah. moom nag nee na ni mu mel mooy xam nga sutura waaw ah, moom wax ne nii laa mel kim ko kim dëkkati la ko wax na xanaa ñu ba xam waaye nag wala nag nee na nii laa mel jarul wax nga dëkk bu yàggee rek dana ko te nag bu baax nga léegi mbayam machine bi la bu njëkk bu ñu daan bayee ndox léegi lu dibee daal bi day bëri ñu sawar di yóbbu di bay bu baax a baax di kañ kañ yooyu da ngaa dégg ñu jox wax yu xam am njëriñ yow ci lañ ko daan wax naan nii laa mel jëlu wax nga dëkk bu yàggee rek dana ko waaw te donc wax yu xam am njëriñ léeg-léeg nga dégg ñu wax ko ci donc léeg-léeg nga dégg ñu def ci saaga yu kéemaane yi léeg-léeg ñu wax loolu mu ne ko maa in xabara riyul de ala dalika zaman te jojale jamaano illa yawmun lare benn fan aw yawmaani wala ñaari fan xatta bada lu may feeñ ila amiri tilkal madara jëm ci buuru ba bale dëkk wa waaliha tey waali dëkk ba fil maqdurati kay borom man an yaqsida ba mu jubluwa baaba xayli yi buntab kàngamam mu jaddidan duram mu daaji heesal adda xayli yi gaara lelam wa mu tamsiran te raaji tawlu aarida nayli yi niiru mayam mu ne kem ñaari fan lañ ci teg kilifa dëkk bi wax ne dafa bëgg a bi ko fi teg mm. da ko bëgg a siyaare ji mm. ah su demee itam défendre compte wan ko liggéeyam mm. ak itam ñaan ko yokkute daal mu ne ñaari fan lañ ci teg seefu dëkk bi wax loolu ko ma xabara bi yu ala dalika zaman te jojale jamono illa yow mun dale fan rek de aw yow maani wala ñaari fan xataa bata lu feeñ ila amiri tilkal madara jëm buura boobale dëkk wa waaliha tey waali dëkk bi fil maqdira kay borom man an yaqasida ba mu jubluwaat baaba xëyli yi buntab kàngama mooy kilifa gi ko bi teg la wax ne moom la bëgg a seet mu jëti dan daa ji xeesal xadda xëyli yi gaaral lelam su demee dal de wanaan liggéeyam fi mu toll ba mu tamtiran de rajo tawlu enritan xëyli yi niiru mayam su demee itam bëgg na ñu yokkal ko dara wartaade mu sàkku nag moom aminul madara anta taabahoo bu àndaa leeg moom tux fa dun may jox nit ndég si daa ngaalee ko loolu mooy tux fa man naa moo la ëppale sax waaye da nga ko war a rek nga da jox dara ndég taral loolu mooy tuur ko maanaam jox nit ala wajil mabarrati wal ikram sëriñ bu baax ay altasaabu bu àndaa léegi moom tox ko tun may to laa imu bëgg na askanantoor xawaahu cobeelu buur bi mu jëm li yuqaddimaha ngir na ko bay na najwa ci kanam bi yàlla mu bëgg nag yóbbal bu xam ne dana kontaan loo kilifa googu mu jëm su demee def ko muy nuyoo balaa wax soxla wartaadal mu sàkku an tas xabaro wa àndaale moom dox ba dun may to la imu boobu dana askanaan doon xawaabu baax yokkat bi ma ngir ne ko jiital bayna yaday najwa ci kanam bi yàlla wa jaala mu xarab yabdulu di jox aljahaila neexal yi li ruwaadi yi ñaar way kuba mooy ñi koy sàkku li bëgg wa yusanni te mu yombalal al wasaila jottale ko way yi ak li man ñaar koo xam ne yóbbu suroo dana ko tugguloo li muraadi yi ci lu ñu namoo mu commencé di génne ay neexal ak di ay dige pour ku ko mu bëgg mooy yóbbal boobu nga xam ne su ko yëgee bëgg dana kontaan ay dige ak di génne ay neexal pour ku ko wa jaala mu xarab di joxe al jaa ila ay neexal lu waati yi ñaar wéy bu ko mooy ñi koy sàkk li mu yu o te mu yombalal alwasaila jottale ko ay li ma ñaar koo xam ne kuroo dana ko tugguloo lu mu raat yi ci lu ñu namm faasa fa dal de suufe saalikal jaaru ba wala dëkkandoor alxattaaru bay wóoru jaakoon illa bu zooli yi jëm ci joxe sama mbul sama dëkkandoor bi doo aadi daal neexal yow ñàkk solo yi de xam ne daanaka ñi teg ci biir ñoom lay seen wéy mm. moo ko jaral ñàkk xiima mm. mu ne wax suuf ko mm. fa sab fa dal de suufe tarikal jaar ba wala dëkkandoo ak xabtaar bay wuru jàkkoon illa bu dooli yi jëm ci joxe nguur gi wansaa te mu mooy xandala adu xanduli yi yeddaange yeddaa koonam fit dirahen haari ci mbu gàcce moo xam su doon bañ a dange ko du ko nangoo waaw sa te mu mooy adlan doole yi ya dange ya dangoona fi drange fi drange laa rek ñoom boo gàcce sol na boobu gàcce ndax ñoom war a dégg seen digal dégg faataa mu ya waali ji naafiran kaa ji firi na yi ñaari noppam mu ne mu àgg na firi wala firi bët lay wax mu àgg nag firi nopp yi waa bësoom waa bësoom mu yulir ko maa lépp loo xam ne kuntu nekkoon naa ak rabtuwoo di ko yoon luy ne jëm ci moom su ma njëwee gaa waxal na ko lépp lu ñu waxoon maa moom daal waxal na ko waaye man yëgu ma famaa raaxaan yi tiitaluñ ma de ilal siyaabu sax yëti yi ndara yooru dagi waali ji ilayya jëm ci man wasdiyaan abadati ak soblantoog ay surgaam alayya ci man man daal damaa toog su ma kër fee la takk der ñu ne maa ngi ko ba maa la aan yi tiitaluma ila siyaabu saaxiyati dara soblantoog ay dagam ilayya jëm ci man yooru ay dagam ilayya jëm ci man wasdiyaan abadati ak soblantoog ay surgaam alayya yësoo mu ne ñi ma togg muy ma togg moom waali ji isaaroo xëbalee am isaaroo bi dura si suur al yasima si ba yasima ñu ne kilifa gi nee na da nga am benn jeexal te moom da ko soxla da ko soxla kilifa gi muy def la ko yëg ah léegi nag comme soxla na ko e, baadoro du soxla du yore su la xaan yi sa jëkki mu delloo su du boo xam ne man ko loo xam ne man ko mu ne dana ma togg moom waale ji isaar soo xëbala mooy bàyyee ko jeegari comme moom buur la man may baatula te moom soxla maa waral di turati cuur ale tiima ci ba yëtiima donte maa jox wuru soo mor pour yëtim muy wuru boo xam ne mooy nekk ci sëlëf rek moo koy nekk kër mooy moo koy nekk wuru bu xool a xool lay doon ala ataaka ma ci mu xataa ale waral ko bil xiima di ci xiima ji mu wax na lu mu wax na dana waxal bi yéen yi daal di ma dikkal min alhammi ci njàqare maa li nga xam ne xas ya dikkal na firaw na firaw na wut junoo doo ak i dëlam mais yem mi ca ndox muy jaaxle boo xam ne mu waroo jaaxle firaw na ci géej wala asal dañu udaab nu ma di jañ xanaa wali jeebet wala yox ne tudd jëriñ dara di ma ma jañ ma jéem a défendre jebeere pour bañ mu génn waaye baadoolo lu man ci bu dama défendre ay ñoom li mu boppam waa station may sàkku tiimu ilayhi jël ci waadi wala yu diita di jëriñ dara rétition sàkku tinu ñi ma bokk ni ñoo ko jege war nañoo mën a wax ak ñoom may leen ko wallee dama bëggoon ñaanal ma kilifa gi daal jebeer bi ñi bokk bi waaye lu leen buntu waaye fas ñoo may dal ko tiru ci lay jëm ci wàll yi wala yu ñuy def njëriñ dal ay souvent dal ko jëm wa kulla maa raa bépp bu gisee moom wàll yi min nii ci man irtiyaada li antiyaad dooleeku jebe warte yaadal manaat ak sàkku rëccuwaay wàll yi ak bu seetan dalee ci man ñàkk a nangu rek te jar ramo mu askanee ay baatu lu mat naa feeñal wata dara moom mu takk ngir mu gën a ñàngal waxarraqa mu hokk xale ci man al urrama ay déggéen muy rekk ke ki bañ yi mooy dama demoon lu koy ragal la demoon lu koy ragal la wana fi ci sama bakkan yëpp maa saari kànd loolu laata moo du tabe mu baraka di bakkan ci tàggu xam loolu tàggu xam na boo wala du mu tabee ba an yaa ci muy génne xam ne sama xol mi sabri ci sama def lu ma wax maa ngi de man daal mooy jëlee la sox dañu koy baax xataa aala ba dellu ba ba mujj alwaxee du tëkku yi yi xaaxaan de xamal mujj yi ma doon tëkku mu tàmbali di ko feeñ dama ñëw a gàllankoor kii ba di ma xatal wa taqriyon mujj yedde yi xiraan di ay duma par mu tàmbali dama duma ma jël ne njëriñ la nga fekk man bu ma dee wàcc bi jëwel bu ñàkk jëwel ñàkk bakkan léegi kay man naa dem istikab axaf fi dara rek ma yeboo wax njëkk fa qaada ma alisfaaqu ragal mais xëy ni ci dee ilaa ne xirtuwoo jëm ci moom watat ko sawaadal ay ni muy ñuul ak bët bi sufratin ay ni ci galak kay mu mujj na ko waaw yóbbul na ma sama soppe sa gar mais jox na ma alal te dinga sawaadal ay ni muy ñuul ak bët bi sufratin ay ni ci galak kay walam yaa sax kay joowoon alwaasira mbaajkat bi bi xëyrin ismi ci lu bakkaar wa sëy ni ak ka demoon rambaaje la mm. moom jotul ca jeebeer ba suma njëkk yi amul te jeebeer ba njëkk rek mooy li am solo mm. moom la xanaa bàkkaat ak wuuru mm. ak ñaaw ak nettali la ca jëlee fanaa tuma kóolante allahu yàlla allah yàlla mu dalika laati la ko dalee ca boobare jamono allah xaadira ba den muy tawat ba den muy toogale mm-hmm. na maam na mbañ tamit moo ci gën a boolale man daal lu bon yi nii daal mm-hmm. ku koy def mm-hmm. te daal duñu bone wasu jaaju te butéel maxsuusun lu ñu jagaleel bi aada tiba bi aada tame xanaa bi aada yi tiba ci jikko yi te xam nga butéel day rey asama mi day ngañ wa bi ci moom yudrabu nga defi sadd almasalu misaal mooy léebu fi namimati ci rambaj fa innaka billadi stodianta minhu ana mumina sujaay bi ma hawahu kon faqat jara dafay daw alayhi ci moom say nu yemini yoon leew sama ngiñ walidalikum saf ngir sabab bi lam tam tab ba tallalu wut ilayhi jëm ci ndabal weer bi yemini sama ndeyjoor li ma tax lay moom su di moo des rek ah déedéet njàngal baax na boobu dañ في سنيه وإنني سأرتق فقي من تليدي وطارفي على أن ما سوتكم من فكاهة ألذ من الحلوى لدى كل عارفي mu ne fala ta'diloo nii bu leen may yedd baadama ci gannaaw li nga xam ne xas saraxtuhoo leeral naa ko xalaan hurimtum ci bu xañee sat leen biye ci man ixtitaafal xataayif witt ay xataayif mooy ay ñam yu neex sàllaw nganale bu neex gi li ci mosu te mel ni maa ko sabab loolu bu leen ma ci yedd alaan prin kunti bu xañee sot leen bi ci man ixtisafal xataay bi witt ay xataay mu yu neex faqat baana bir na xosri sama ngant fii sa li ma def li ma def leeral naa leen li tax ma def wayi na ni te man nag saa naa deferee mooy hubi hubee mooy ñaw fat sama xar min tali di ci li ma fekk baax wataari bi ak li ma fàggu te nag dama leen di xamal ne man nit laa koo xam ne léeg mu mel ne xañ naa nit dara sax waaye danaa ko jagala danaa ko jëriñ lu ko wala léegi mu mel naa dara sax waaye daa ko am faqat baana bir na xodri sama ngant fi sa nee ci sama jëf mm. waaye na ni te man ko kasi naa mm. faqi sama xar-xar ku ne ah bu yàgg laa ko yónnee si la ba léegi dëkk bu min talidi ci li ma fekk baax wa taarifi ak la ma ala am na maa li nga xam ne dawattukum yóbbal naa leen ko min bukaatin min al xalwa ci xalwa da daa kulli aarifin ba bépp aji xam li ma la yóbbal neex qaala al haaris ibnu hammaam haaris nee na fa qabil naa ñu nangu ixtidaarahoo wa qabbal naa ñi foon xisaaroho ay faasam ñu nangul ko ngàndam wa qul naa ñi wax loo ñaar ko ñu ne ko xidman ca jakk waxata dóoroon na an na miima turambaaj xayral basari ki gën ci mbindeef yi xattan tasara ba tasaaroo xan xammaalatil xatta bi jëlee ci xammaalatil xatta maynu katat xanu xenu kat matt man tasara la tasaaroo ñu ne ko waaw yow rambaaj du yow yak njëkkaam lu la naqari yonente bi sallallahu alayhi wa rambaaj mos na koo naqaral ndax wamraatu xammaal ratami dara ko waral muy ummu jamil ki da dem ci ay barab da teg wax yu jagati ci yonent bi ne bëgg yàq dara ci la ko alquran tuddee woon xammaalatul ratami ndax wax dëgg yàlla ku ñuy wax muhammad nga bañ ko bari ko musammam xatan tasaara ba tasaaro xan xammaalatul ratami jëlee ci xammaalatul ratab man tasaaro la tasaaro waa ko def lu ëpp na ah su demee bala nga def yi mel ni gëmmu dóor boo xoolee ah mais su ma saal naa ko topp ñu laaj ko nag xam maa ci li nga xam ne ahadasa sos na ko jaaru hoo dëkka ndooram alxattaat bayra mbaaja kóor wa duxluloo ala ji jaxasoo am almustaat bu daa ji jàggati bantaan raasa ci gannaaw bu la woo ñaal ko nab la si ayiti fett ak rambaaj waja sama te mu xam la riayati buumu kóolare ñu ne ko waa ji fi mu jàmboo nag ba dee defi ñu mu jeg yow fu mu jeg yow fa qaala mu ne axada xaraf na fil istixzaa'i ci toroxlu wal istikaanati ak mokku mokkulu wal istisfaay ak sinuloo ilay dem ci man bi dawil makaanati ci borom daraja yi xanaa de dem ci borom daraja yi naan leen wax leen ci suma digganteeg diw wax leen ci suma digganteeg diw mbir mi daal suñ ko teg man tegu ma ko fa woon daf diisal wa nekkoon naa xarajtu di xasan xalaa na fii ci sama bakkan allah yastarjian wala dellu ilay dem jaman am si sama démb man nag dama noonu bu démb daa ci wut loolu doom ak moom falam yëkkul nekkut la hoode ko ñaan min nii ci man si war a di lu mooy delloo rek wa ifraat ak nuuxan a sëdd ci du mooy ba tax man nu mu mën a jox ko gannaaw rek woowa te moom laa yëg sa ibu den muy jàq minal la ji ngir delloo gi mu koy delloo wala yëg sa ibu den muy kertawu min waqaat waji ngir waaw xar kanam dégg ñàkk kert waaye dafa mel delloo gi mu koy delloo yëgulu ko yaramam jaani gi ñu koy jaani yi ruutu ji ndax amul jom bal li fi nekk yu litu dana mu tëqoo bil wasaili jot le ko waayi wa yu leexu te dana mu nuur fil masaili jëllaay heure bu ne rek man day gën di feddali rek bëgg a fa ma an xadanii hun ma min ibrahima ci yoo xat loo am wala am hada sorilun haali ci moom nay la maraami am càkkutéefam illa ab yaatun dara ay wëy yoo xam ne nafasa tudd na bi haa ñoom asadu dënn al al mawtóor bare buñ feeñal bare mbañeel wal xaatur ak xilal al mawtóor bare buñu dagg bi may baxaataal ay wéy yoo xam ne dama ko wéy ci koo mere ko torop te boobu noonu laa mën a waxee ci moom moom laa wéy nafata tudd na bi aa ci ñoom asadru dënn almawtuur bari bu ñu feesal mbañeel wal xaatiru aqilaal almawtuur bari bu ñu dagg fa innaha wéy yooyu daal kaana nekk nañu madharatan di dàquwaay li saytaani yi ñaar saytaaneem wa masjanatan tere tëjuwaay la woo ñaar ku fi awtaani yi ci dëkkam wéy yooyu daal bi mu dikkee la ma baaxa làqu néegam na wayen der ci saariha ba tasaaroo wëyi batta la dagg talaqa gu góor fase fase mbégte wadaa te mu hoote bil wayli ci mbugal wa subóor ak mbugal wayeyi te mu min nasri wasli ci dekki sama jokk mooy sa sama jokko al maqbuur bari bu ñu suul kama yeyi ni ki al kuffaaru héefar yi min asaabil xubóor ci ñooñ bàmmee kon ñu jàng wala xam suñu xaritoo gi jeex wayeyi sa mu Mm. li nasri wax li dégg sama jokkoo al ma mm. ko góor dëri kuñ bàmmeela sama yi ni gi naago al kubaa ni koy dana saabu ko góor ci barab moom daal ay wëy yum wëy daal ca la ko waa ji baxee daal ca la ko waa ji baxee daal mm. wa naasat naahu ñu sakku ci moom ayun sidanaa ba mu saddalat ñu iyaaha wëy yooyu wayoon si xanaa te mu fóonal ñu mm-hmm. reyaaha gattag way yooyu seen xëy yu neex ñu ne ko way yooyu bëggoon nga jaaral nit ñi am ko fa qaal mu ne ajal waaw ku de xam na al insaanu nit min ajalin ci yàkkamti mm-hmm. moom nag boo xiisee xam naa da nga yàkkamtee dégg raxasul rek waaye ci la jëm si woon de toog de yàkkam nga dégg na wax dëgg la loolu la rek waaye ci la jëm si sax de ci la jëm si sax de waaw loolu la wax de mu ne ajal waaw xule xam bindeef na al insaanu nit min ajalin yàkkamti su maan sada topp mu sadd layes wi du ko delloo xajalum rus wala yas nii du ko wëññi itam nga jëloon njàqare mu tàmbali di bay wëy yi amul ci dara lu muy làq làq am lu muy ragal a wax wala lu muy xees bi ñu dégg rek mu ne war na di min mahabtuhu sidqa wuddi istawhamtuhu sadiqan habima summa awlaytuhu qati'ata qalin hina alfaytuhu sadidan habima qiltuhu qabla an yujarraba ilfan zatimaamin fa baana jilfan damima ba mu àgg rek wana bii min bëri na aji naanu haale joo xam ne mahattuhoo sellaloon naa ko sitqa wuddi dëggug sama cofeel istawahamtuhoo ma ko defee sadiqan muy xarit xam yi man buy jege ñaar dafa am koo xam ne dama daan bokk ak moom sama sama sàngara si ñii ko naan ma soppoon ko torop ca ba ma foogee ne xarit la mahattuhoo sellalal naa ko wuddi dëggug sama cofeel istawhamtuhu ma ko def la woon te dee xam ne xarit xam buy jege ñaar su ma awlaytuhu topp mu méngale ko qati'ata xaalin dogu aji bañ gannaaw gi ma dogu ko wan ko ne ko bëggatuma ci yow dara dara dara dara xiina alfaytu waxtu ma ko fekkee sadidan muy kem dëkk hamiman juraaji tàng ndegam nit la ko xam ne mu sori la sax moo gën ci mu jege la parce que dëkk bu nee ci sa biir jëmm dala sonnal bu tegee ci sa biir yaram dala tilimal su fekkee dala jege mën na la kasewal kon nag nu la sori rek moo gën nit la ko xam daal mu dàngante ak yow moo gën ci yow muy la jege xinaal fay toox soo ma ko fekkee sa muy kem dëkk xam yi man judaa ji tàng xiltu woo jortu woon naa ko gis jinaa sante xam yi man xamima xiltu woo jortu la an yuy jarraba njëkk bu nattoo fat ko ilfan muy xarit saa si maamin bay boromi kóolëre dama yaakaaroon ne xarit bu am kóolëre la balaa ma koy nattu fa baana mu bir jil fan daaji beccingal ndeke moom ku bon jikko la sami man kare ku de ku bon jikko sami man de ku ñu ŋañ jël nga ilfan jil faa saa si maamin ak jinaat bi ci nekk sami ma waxta xayartuhoo tànnoon naa ko këli man mu de ku ñuy waxe dama jàppoon ne waxandoor dëgg la may ko waxaat samay mbir ñuy waxtaan faam saa mujjee min hu ci xal bi sama xol këli man ku ñuy jam bi ma janaaw ca tooñ ca tooñam ya waaye tax ma jam jam jam bu dul wérati ndax moo ma yàqal te ne du jàkk a jiraahatu sinaani lahal ti amu waaw ah, mu ne jam-jamu guntu mën nañ koo faj mu wér wala yaltaamu ma jaraxal lisaanu waaye lan nañ lu mu jam faj mu wér mukk na xiftu woo jottu woon naa ko qabla yu jarraba njëkk bu nattoo bot ko il fan muy xarit sa simamin bay boromi kóolëre fa baana mu bir jil fan daa ji becc sami man de ku ñu ŋàññi wa taxayartu woo ma tànn ko kaliman muy ku may waxe faam saa mujjee minu ci am xal bi sama xol kalimante ko ñu jam bi ma janaaw ci tooñe wa tadannaytuhu mu'aynan rahima fa tabayyantuhu la'inan rajima ndax loolu ci tegu wa tadannaytuhu jortuhoon naa ko mu'aynan mu da aji dimbale rahiman di aji yërëme dama foogoon nit koo baax a baax la ko jar lu ne la fa tabayantuhoo ma birlu ko laxinan muy ku ñu rëbb rajiman de ku ñu jam waaye bi ma ko xamee ndeke seytaanun rajim la fa tabayantuhoo ma birlu ko laxinan muy ku ñu rëbb rajiman de ku bon de ku ñu jam jël nga moyenan laxina xeetu jinax am na seen diggante rahiman rajima wa tara ay tuhoo seenu woon naa ko muridan mu daa ji nam baax man ba ma janoo moom nit ku baax la gisoon fa feeñal anu ci moom sab kii sama togg la woon ñaal ko muridan mu daa ji pétérlu la iman de ku bon waaye bi ma ko gëstoon dëgg kàccoor bu jarul dara muridan muridan wata wasamtu settantaloon naa an yahubba ba mu hubbat nadiman galawu nadim galaw lu neex dama foogoon ne ndax ku dëkk ak moom may ko jàmm danga da ngeen jëriñante dimbalante seen nekk dana neex loolu la foogoon faabaa mu bañ ay yëfu ba ba mu huppat illa sa mooma dara ngelaw lu tàng waaye ndeke daal mbaax daal ku baax a ko mën a joxe waaye ku amul dara ndeke du ko de joxe moom benn mbaax newul ci moom bon ki mu am rek la mën a joxe moo tax daal lu ma ko teral teralit yàqal na rek ci la am rek man daal <coughs> wat wata wasamtu settantal naa ay hubba ba mu hubbat nasiman ngelaw nasim mooy ngelaw lu neex faa baa mu bañ ay hubba ba mu hubbat ila samuman dale ngelaw lu tàng bittu fanaan naa saliman dëkku laaru min la tay ci mattam alladi matt bi nga xam ne ajasa lott loona mu arraqiya aji mocci wa baata moom mu fanaan saliman da aji mucc min nii ci ma def na ma loo xam ne du wérati te nag naan sama naan loolu laa fanaan naa ko lii man laalu min la yi ci mattam alladi bi nga xam ne ajasa lottu loona mu aji mocci wa baata moom fanaan saliman de aji mucc min ni gis nga ñaari saliman yi bokkuñu ma wa badaa feeñ na na biwoo yoonam xadaatu tarat naa suba dañoo tàggalooyee feeñ na yoonam mustaqiman da aji jub wal jismu feeñ yaram man saqiman da aji xom na ci man de waaye man kim jege ci mustaqiman ak saqima ah dinaa sant am nañ wa bada feeñ na la da aji jub adata torox na suba feeñ tàggaloo wal jismu feeñ na yaram min saqiman da aji lam yëkkun nekkul raihan da aji yéeme xasiban da aji naat dukk ñuy yéem taaram walakin li bi nekk a nekk na raihan da aji tiitale li ñu xam bi sarri ci ay xasiman da aji xulu dukk may kontaan ci doxalinam de nga xanaa su ma indil ay lam yakun nekkul rayaan daaji naat daaji yéeme xasiban daaji naat walakin li mu nekk kaana nekk na mu rayaan daaji tiitalee li ñaan bi sori caay xasiban daaji xulwaat kultu wax naa lamma balawtu ba ma ko nattoo ba ma ko ba xam ni mel daal dama ni ee eh, laytahoo xeellante hoon moom kaana mu nekkoon addi man de ku ñàkk walam yëkkun te du nekk li ñaal ma dadi ma daaji naanu haale ki daan xellante woon yàlla ñàkkoon ko bind rek ndax bu bu mësa ko bag moom mu ne loolu laa mujj wax adi ah man na dima dafa nekk koo xam ne xaj na daal ak ñàkk moo gën am ko daal baxada bañal na atuba tuba xiina nam ma waxtu wam rambaajee ilaa xal bi jëm ci sama xol mu ne ñàkk weer gam ma weeroon tax na suba sax ba bu jëpp ci suturaal ñu ndax lépp mu ne suba sax man bëgg ku ma bëgg sutura ak yàqal guñ ma yàqal ci weraate tax na képp koo xam ne ma la wuri doon ñàkk ci yow suba sax ko bañ te moo tax baxada bañal suba suba ina waxtu wam rambaajee alxalba sama xol ilaa xalbi jëm sama xol li ànd na sabaaxal suba yul fa des na ko fekk na moo man mi rambaajee day weer lu guddi na ko wataani hoona ma ilaaha wal layli jëm ci soppu guddi is ngir kaana nekk na sawaabu duja la layu lëndëm raqiban daaji fuglu katoo man deme bako wa kafa doy na man ku xam ne yëf yi dafay rambaaje kuy siiwal secret jàmbur yi de toxal wax ci anam ak yàq kooku doy na ko asa man bakkaat fii ma ci li nga xam ne ataahu dikkal na ko wala man ak mon mu ne ak lu mën a taw rek bon na ba mu bon ñam wala faaha donte bisit xëy ci dëgg donte la may wax lu xam lay tewut koo bon bon ñam la ndax lu xam lu ñu war da ku koy wax yaa ngi la war da rek te lu xam lu ñu wax ah ku koy wax yaa ngi la war da rek loolu moo ci nekk te wala wakkafa doy na may yësi kuy rambay wala baaxa doonte tudd na sax bisis ki dëgg doy na ko asaman bakkaat bi ma ci li nga xam ne ataawu dikkal na ko wala man ak mbon xaala xaaris nee na na xam ne bëri nag moom dañ koy xaajal dafa xaw a bëri ba léegi dégg nga jàng tuuti bàyyi ko bësu ba dafa bëri dégg nga xaala xaaris nee na falamma samia ba déggee rabbul bayti borom kër gi mooy ki defoon invitation bi daal di woote ngana léegi te amul seen i gerte bi mu leralee li ko tax ak gerte ba wax ni toog bi mu déggee xariqahu wayu abu saydin mi ci wënadi min maxat soo sitqa wuddi wa sañoo ak sañoo mi innahu kaana li jaarun li jaarun lisaanuhu yataxarrabu qalbuhu xaqra ba mu xàgg wastamlaha mu rafetlu taqriisahu taggam mooy na melale jeeber bi mm. taqriis mooy tagg woo xam ne ki ngay tagg mu ngi dund mm. dafa def ngóor a nga rek war na ko am na ngóor a mooy kañ mm. bokkul ak marsiya mooy nit ki dafa dee nga bind ci moom de métti lu dee am de wax itam dara ci dundam mën naa dugg yi mën na doon itam wisaar ñi ko wax marasi ñi ko jëmoolee marasi dégg nga gis nga ko bu baax wasam laxa te mu neexlu taqriidahoo taqriidam wasaña wasamahoo ak ŋàññam taqriidahoo taggam wasamahoo ak ŋàññam bii borom gana léegi déggee li ki doon gana li nit ñi waxi Abu Zayd neex ko bahadahu bawaahu wàcce na ko mihaada karamati lalu te dangam te mu ah yow kat sa cëra bopp ngay xam di daf ko beral loxo wa saddarahu mu jiital ko ala takrimatihi ci tërangaalam defal ko loo xam ne yëfi kilifa la su mastahdara topp mu teewlu entre sihaabin fukki bagaan minal xarab bi tukkee ci xarab benn garab la bu ñuy liggéeyee ay ndab xaw ko fiiha boobu nekk na ci xalwa ul qand aji neexi qand wa darab ay xeeti suukar ak xeeti lem la mu wax ne nañ ko indil fukki ndab yoo xam ne ay wa yu neex moo ci nekk dañ ne ndab yoo xam ne ñu la leen liggéeyee ci ndabi xaras duñ ay ndabi weer xam ne la jaane fekk di wuñ ko kenn du ko gis indil ko wa qaala mu wax la woo ñaal abu zeydin tuuti rek moo mu ne ko abu zeydin ah la yastawi du xeemoo ashaabul naari wa ashaabul jannati ak ñooñ àjjana ah naka jekk yàqkat ak defarkat duñ de bokk cër ku bon ak ku baax ah duñ de bokk cër ku torox ak ku ñu a ak ku teral duñ yem benn wala yasoo te it du dagan ayu ñaala bu defee sax albariu ku dañ tuuma kadi zinnati mu mel ni borom tuuma ndab yi ma jox la soo ko gannaaw kon li nga layee du ma ko gëm damaa jàpp mooy bëgguloo sama ndax su fekkee ndabal weer ñàkk suura moo tax kii am suura waa bi aaniyatu ndab yi day ñoom tatanazzalu danañu wàcci manzilatal abraar wàcci waay way baax yi fii sawnil asraar ci ñoo ngeen góor yi wala haa ngeen la bu leen méngale alimaada soriloo bu leen soril de wala tooli hiq bal héegal hóodan hóot bi aadin ci aat ñi jàngal loolu aat aw nit lañu woon ñu xam ne dañoo xamoon doole doj yi lañ daan xeet dëkk ci biir xelu bu baax a baax daan doxal doxalinu doole yonent yàlla hoo defeen mbokk ñu yónni ko ci moom mu xooleen ci jaamu yàlla moom kenn xooleen ci yërëmante ak def ndànk wattande ko féttéerlu ñi bañal ko wan ko ne ko ñun kenn mën lu ñu dara sama borom xalagee leen ngelaw loo xam ne saxaraha alayhim samata sama layaalin wa samaniyata ayamin husuma ci gannaaw musalee xóot ak ñi gëm xóot bokk gëm bokk ak xaat da seen bokk taxul mu bokk ak ñoom xaate de bu ñuy halak haar bokku ca de wala ma jaa amruna mu ne jee naa huudan mu ne bu yéene yéen nag ñoom dabi ngeen suñ bokkee ci dajee bi am na lu leen wutale de la nga bañee ndabal weer gannaaw nekkul ci ñoom waroo leen a bañ de ah wala du de bal héegal huudan huud bi aadin ci aad ci ndab yi hmm. ne ko su fekkee sutura nga bëgg yi hmm. ñoo am hmm. su waa balañ def na ngay def te ndabal weer la donte la ñoom waaw summa amara topp mu digal xaadimahu surgaam mooy jàmm bi farek moom di ko liggéeyal bi naqalihaa ci toxal ndab yooyu ilaa maswaahu jëm ci saxuwaayam li yaxkuma ngir na xàtte moom abu seydin bihaa ci ndab yooyu bi ma ci li nga xam ni yow mu ne ko ndab yi dëgg ko yóbbul ca dalam ba su ko yóbbulee ca dalam ba mu xam ne moom moo ko moom mu ci bëggee rek mu mën ko caa defee ah loolu la wax jàmm bi koy liggéeyal ma jàmmam moom borom ndab yi moom borom njëkk li na ko jëlal ndab yi nga yóbbul ko ko ca dalam ba su ko defee mu xam ne moo ko moom ah nu mu bëggee rek suma amara topp mu digal xaadimahoo surgaam bi naqalihaa ci toxal ndab yooyu illa maswahu jëm ci soxwaay abu seydin li yaxkuma ngir na xàttem abu seydin fiihaa ci ndab yooyu bi maa ci li nga xam ne yéen waaw dana ko fab fa aqbala dal di jublu si alayna ci ñun abu seydin ñu ngi ko ndab yi nag mu daldi ñëw ci ñun xarit na mu daal di jàkkaarloo ñun waqaal mu ne iqra'u jàngaleen suuratal Fathi buntu feeñ na jàngaleen saaru Fathi mooy kubéer dikk na waab siro te na ngeen bégee bindi maalil xar yi ci wér ak bi bënn na jàngoro bi ko taxoon a na léegi daal mën naa am fekk tiraanga ji xamu leen ci cër ah doon na métti ci xol yi mm-hmm. waaye loolu moom jeex na waaw siroon na bëgg bindi maalil xar yi ci wér ak góom mm-hmm. faqat jabara jag na allahu yàlla suulakum seen ñàkk gi wasan naa te yombal na uglakum seen lekk tiraanga ji demoon ngeen bu wékki ci seen yaakaar waaye sama borom tabaaraka wa taala jox na leen am ngeen ci cër faqad jabara jàng na allahu yàlla sublakum seen ak ñàkk mooy ni ngeen naroon a fertaay ci njëkkale du ngeen ko mos loolu dañ na wasal naa yombal na ulakum seen lekk wa jamaate boole na moom yàlla samlakum seen mbooloo fi zillil xalwa ci keru xalwa mooy yu neex yi am fii am ngeen ci cër rek halwa mooy yu neex yi ñoo def fexe am nañu ko firee tàngal am nañu ko yeneen waaw wa jamaa te mu boole samlukum seen mbooloo fi xillin halwa ci keru halwa mm-hmm. waasaan te këroo léeg-léeg ngeen sib mm-hmm. say an dara mm-hmm. wala waasaan te këroo xañ na bu ngeen siba say an dara waxuwa te dara jooju xayrun yiw la lakum ñaal leen wala xayrun moo gën lakum ñaal léeg-léeg nit léeg-léeg xam luy ñëw du ko neex te fekk loola ko ji ba ngeen a sori ndabal weer la boobu neexul leen moom waaye benn ndam ngeen sori mu jural leen ngeen am fukki ndab xam nga moo gën waaw waasaan fekk raxoo léeg-léeg ngeen fi xaj na ngeen bu ngeen fi ba say an dara boo wate dara jooju xeerul moo gën la suñu yàlla wala maa xam ma ba mu hittee woo moom Abu Seydin belleen seraat ci wëññeeku bi mu bëgg a bàyyee ko ci barabu wooteekaay bi war dem ca dal ba mu ndam yi xam maala jéng na mu ila stihdaa istihaafi jëm ci mayu xotti ndab yi xam naa ko bëgg daal ñu far ko bàyyee xotti ndab yi waaw maala jéng na ila stihdaa istihaafi jëm ci mayu bagaan ñam bi ko jox ndam yiñ ko def xam naa bëgg nañu bàyyee ko ndam yi fa qaala mu wax lil aadi bi ñaal aji ganale ji mu wax kii ganale nee ko inna min dalaili darfi bokk na ci teggi ini ñaw tegtali ñaw tegtali nite inna min dalaili darfi bokk na ci tegtali ñaw samahatal muhdi kabeeg aji maye bi war fi ci ndab lu yekkal nit ne ko far fi li day tegtale ñor ak ko def ndax tiraanga ji da def <laughs> bokk na ci teggi yi ni ñëw samaahatal muhdi kabeeg aji maye bi war ci ndab loolu laa bu sëriñ wax ki doon dem nga na léegi fa qaala aadi bineeku kilaahuma kii képp ci ndab yi ñaw ñi lakk ñeexal na la wal xolaamu ak jaam bi la ko yóbbu waa na ko jëlal yëpp ndab leeg ñaw yeeg jaam léegi faasif na nga xasam alkalaamu wax wan xatte nga buur bi salaam yi xam ndagum ci léegi ñu xeeri nañ la man ngaa dem ci jàpp ak àlla baax wasaba daal di buur mu abu seydin fil jawaab yi ci tontu la bi aadi bi tontu lii rek nag la buur xam ne fi ne dem rek moo de wa sakarahoo mu sant aadi bi sakra raw di kem sant ak dën li sahaabi ñaali biir mu cant ko cant koo xam ne feeñ na ci cël maayam ni nga gisee tollu dër bu ci tawee mandargam taw yi parce mm. mm. mm. que kare woo mu sant ko suura raw di kem sant ak dër li saabi ni hanni su maxtaada naa topp xoman ñu abu saydin abu saydin ila xiwaa yi jëm ji làqam mooy xam dal abu saydin ne kon ñu xàgg ca dal wax kamanaa mu xàtte loo ñu fi xalwaa yi ci xalwaa liñ ko jox nii mu ne fa ko teg fañ ko teg ci sama loxo waaye yéen a ko moom ndax lépp lu ma moom rek yéen a ko moom kenn lay fee déglu lu ngeen fi wax rek loolay am moqtaada naa topp xaman ñu abu zeydin illa iwaa ihi jëm ci làqam mooy wàccu waayam waxakkama naa mu xàttal lool ñu fi halwaa ihi ci halwaa wa jaala mu xarab yu qallibu de jàllarbe al awaaniya ndab yi biyadihi ji loxo commencé di yëkkati ndaw yi def attaque limi ndab yi xalaa xadadi yi ci limam mooy ñim ànd ñu nekk mu seet ndab bi mu leen farale summa qaala topp mu ne mu wax ne lastu den man adri may xam asko ndax damay tawat saalikan na maama boobale rambaaj damaskur hmm. wala dama mooy sama ma ne rambaajkat bi ma tax a gedd hmm. ca weer la hmm. gedd ga jural ma fukki ndab yi xam nga dama gis ne lim def loo baax la ci man ah ma sant ko rek wala déedéet la ma ko sikki woon lu ma yàqal la ma wéy de ko mere rek xamul ma jële lastu den man adri may xam aas ko damay tawat saalikan na maama boobale rambaajakoon amaskur wala dama koy sant waatanasa wala damay fàtte fàttelu faala tawa jëfam allati ji nga xam ne faala def na ko amaskur wala dama koy fàttele wala jëfam ju ji dama koy takk du ma ko mos a baxal wala dama ko far bàyyi rek ma daw xamul lu ma fa inna woo naka moom nammaam bi nammaam bi wayin kaana doonte nekk na mu atlafa di jiital aljarimata toñaange wa nam nama te mu boyaate an na miimata rambay fa min xaymihi ci niiram in halal la dottee ko haadihi diimatu tam tam ma defoon jagadi na defin mu jagadi woowale moo ma jural tiranga tey jile ndax damay mer rek defin mu jagadi woo du ma mos a féexal wala damay dëgg ci teraanga tey ji rek muñ baal xaw lu ma ci def daal wayin na woo naka moom wayin kaana doonte nekk na mu aslafa de jiital aljarimata tooñaange fa min xaymihi ci niiram in halal la dotte ko haasi diimu ci bile waan wa bi sayfihi te ci jaasim in haasal la làqoo la dajeexee li ye ñaan ma hadi al ganimatu gile ma ci sababam laa amee lii waqat xatara rod na bi baali ci sama xel anarjaa ba ma delluwaat ilaas baali jëm ci samay xalo mooy samay doom waa qanaa te ma doyloo bi maa ci li nga xam ne te san naa jàppandi na li ñaan ma waan laa utem ak bu leen may sonnal nafsi sama bakkan wala ajmali mooy léegi dama sama xel dafa day dellu kër seeti ja njaboot la seeti njaboot ga ak doyloo ma am ndax naa doon yokku coono rek ci man ak ci li ma xam waaw waqat na bi baali ci sama xel xanaar ji ba ma delluwaat ilaas baali jëm ci samay xalaat man daal tournée bi moom dama ko bëgg a dagg bi dem seeti kër dellu ja waa xanaa ma doyloo bi maa ci li nga xam ne tasam naa jàppandi ne lii ñu xam ma kenn ma jotaa kenn ma jotaa ma doyloo ko walla udem waa bu leen may sonnal nafsi sama bopp wala maa ngi di jàggin samay gélém ba ñu nekk déwé yi muy nekk yokku coono ci man ak yokku coono ci ñamoo waana man uwa dema ko maa ngi leen a dégg maa ngi leen a uwa dema ko maa ngi leen a wadaa muhafidin tàggoog aji sàmm kóolare léegi nag maa ngi leen a tàgg tàggoog ci wattu waa taw di wax ko maa ngi leen a dénk xayra xafidin yàlla muy gën ci kuy wax maa ngi su ma sawa topp mu xemoo ala rahilati yi ci gile moom ba ma la war gile moom rajihan daaji dellu fi xafirati yi ci yoonam tegee ci yoonam wala wéen te daa ji boyu mooy di dem dem bu gaaw illa sabirati yi jëm ci mbooloo ci dem bu baax a baax gis nga bu baax ay bokkam ay jege ñaare wala wéen te daa boolu it boyu illa sabirati yi jëm ci jege ñaareem faxaadara naa mu bàyyi ñu baada an waxadat ci gannaaw bu gaawe ansuhoo gélémam wasaayala naa te tàggoom ñun unsuhoo wéttalam daf ñu bàyyi kada sin ñu mel ni jataay taxaaba ba fàddu na sadruhoo njiitam aw laylin walla ñu mel ni guddi afala góog soxna fàddu foo weer salla bi mu demee ba jox ñu gannaaw dafa mel ni place bu kilifa ga dem de walla guddi gu weer wu soo na xorom si jataay bi moo ko doon faxaadara naa mu bàyyi ñu ba daan waxadat ci gannaaw bu gaawee am soo gële moom wasaaye la naa te tàggug ñun un soo wéttalam mu bàyyi ñu kadda sin mel ni jataay bu xam ne xaaba fàddu na sadruhu njiitam aw laylin wala ñu mel ni guddi afala gub soox la badruhu